Sénégal 24 mbégteeg bànneex la daal di doon saa su ne topp gi ñu topp waaye rawatina ànd bi ngeen ànd ñu sa suñu plateforme yanji bi nga xamante nag moom mooy Sénégal 24 mbégteel nag ak bànneex saa su ne ñuy suñu internet yéen ñi nga xamante ne ñuy faral di bàyyi xel bu baax a baax a baax ci plateforme bi nga xamante ne moom mooy Sénégal 24 waaye rawatina yéen ñi nga xamante ne ñuy bàyyi xel suñu ay ci ayca ñëwate nañ nag ci émission bi nga xamante ni moom la ñu dëppee sama talent di émission boo xamante ni dafay faral di dalal ay ndaanaan waaye tamit dafay faral di dalal ñoo xamante ni ràññee nañu leen bu baax a baax a baax a baax ci pàcc bi nga xamante ni moom lañ faral di nekk saa su nekk nag ñu indi ci kenn fas yéene waxtaan ak moom ci ay jaar-jaaram ci tamaamam ci mën-mënam te nag ñu dala ci koo xamante ni ku ne ràññee la ah, ci plateforme yi vraiment à ci liggéey bu rafet nga xamante ni moom la nekk di def rawatina clip bi nga xam ci Lovely Mounass Lovely Mounass dama koy bàyyi mu nuyoog mbokku internet Sunugal 24 Lovely Mounass maa ngi lay nuyu. hello maa ngi nuyu ñëpp di waa Sénégal. di nuyu waa suñu. gaal 24 suñu gaal 24 ñu mu invité fii tey. Mhm. di nuyu yéen ñi toog fii di def man émission. Mhm. di nuyu sama ménage bi ànd ak man ñu koy wax Zézé. Mhm. Zeyna doomu bi bi. di nuyu ñëpp quoi ak waa Gambie tamit. ayca macha allah tey nag ki ñu dalal Sénégal mi la mu doon doomu Sénégal waaye tamit mu doon doomu Gambia ah fas yéene waxtaan moom mais maam Sali waaw di moom maa ngi lay bëggee. au début de semaine. waaw fi doon nii semaine tàmbali na xam nga. nga mën na ko dundee guddi gi. <laughs> <laughs> ci sama waa ji. ah, ah waaw man moo loolu nitu guddi laa. moo taxit la demee nga xam ne loolu. waaw ah, mais des fois foog nga rocceeku di ñëw yow tamit. bi damay ñëwaat incha allah non dimanche faa mu ñëw. waaw ah, dimanche foog nga teew yëpp moom ko benn dimanche. waaw loolu a ñàkk. waaw walaay ndeysaan. di ko jaajëfal bu baax a baax. amaat contentement ak mbégte bu mag a mag jàkkaarloo ki nga xam ne moom lañ naan Lovy Mounass doon koo xam ne macha allah jeune la waaye doon koo xam ni ku am talent la. tey nee naa leen chaise bi mu toog ndaanaan dëgg-dëgg moo fi toog waaye bañ xoolee ba gis liggéey bu rafet bu mu def. ak clip ak yi nga xam ne macha allah génne na ko daal di wax moom tamit mu bokk ci kër gi bokk ci émission bi doon chroniqueur ci émission sama talent moom doon na koo xamante kenn dootu ko présenté saa su comme ni ñu koy daal defee rek waaye comme ni mu ko daal di waxee rek tey ñu daal ki nga xamante ni loolu menace la mhm. mu doon jàmbaar ah, doon jigéen boo xamante ni mu ngi bay waaram waaye tamit mu ngi xar-xarloo rang bi seera na nag mais dina faire le tout moom <laughs> ba génne ay yëfam xam nga sénégalais yi daal koy challenge <laughs> commencé ko bëgg mais loolu dañ koy dooree ak clip bu bees bi nga xamante ni moom ko def muy def toile gis nañu vidéo bi qualité image rafet na son bi am na thème cest dire que am na bind xam nga mhm. euh, ñu ngi dégg ay paroles yëpp dinañ ko daal di la la bokk ci album la bokk wala nga ko def noonu Mm-hmm. parce que toogoon naa toogoon naa lu yàgg avant may génni ay euh, ay son quoi. Mm-hmm. parce que dama defoon pause lu yàgg. Mm-hmm. léegi ak euh, style musique yi génn temps yi ma dugg ci ama piano bi ma def ko waa studio ba apprécier ko ma ne quoi pas ma génnee ko. yaa moo waral clip bi. Mhm, moo waral clip bi quoi mais bokkul ci bokkul ci bokkul ci bokkul ci mixtape bokkul ci ci album. bokkul ci non non single la rek. single bu just like that comme d'habitude. single la quoi. ok Mame la plupart ci ay vidéo am dañuy gis yenn mots yi nga xam ni maanaam mhm. euh, euh, affaire du vulgaire lay doon parce que. Euh, bu fekkee gars yi ñu ngi koy déglu tout ça yooyu noonu. Mhm. le pourquoi maanaam nga choisir loolu noonu peut yenn mots yoo xam ni. day am vulgarité. Mhm. ay xaw ma na taxaw ak. nit <laughs> taxaw ci xaw ma du wàcc ak <laughs> mais vulgaire. ah ok ça dépend it's not vulgar with me because man mi ko woy man mi ko jéene ah ci man vulgaire quoi. Hmm. yeah ay message yu ñuy lancer la rek. mais ci sa habillement nag. ah sama habillement tamit vulgaire it's just simple like an artist you know. ok ba tey loolu baax na. Mhm. waaye est-ce que tey jii ni peut-être euh, la plupart ci ay seeni sol wala dara. Mhm. est-ce que euh, euh, yenn affaire de chantage yi nga xam ne peut-être ay promotion canapé tout ça yu noonu nga xam ne gars yi gis nañ ñu bëri ñoo xam ne dund nañ ko est-ce que tey jii nii yow mës nga koo dund. non. understand ma like what you mean. promotion canapé xamoo ko. what is. chantage. oh chantage. non non I don't think so. ok non. soo ko dund quoi. déedéet mosoo no ci benn studio man yàlla dafa def ci label bu ma nekk waa Rockte Music we like a family depuis ma commencé sama musique si ñoom laa nekk. Euh, euh, Job Sabren maa ngi koy nuyuwaale. Mm-hmm. franchement jàpp na ma comme sœuram. loolu moom amu fa ay doxaanante sax amu fa parce que yàgg naa fa ça fait cinq ans. Mm-hmm. maa ngi Rockte Music. mais ay affaire de doxaanante bëggante nii nii franchement mooy loolu. am na focus si bi maa ngi focus bi te ñu ngi ciy jàpp bu baax maa ngi leen di nuyuwaat. Mhm. encore une fois. vulgarité bi nga xamante ni dañ la koy faral di la ko tabbee c'est-à-dire que si say habillement si say kaddu si say parole. Mhm. Euh, loolu noo koy dundee parce que ñu bari nee nañ yow say say say say say son. say mhm. bind. dafa am benn vulgarité boo xamante ne nekk ci biir ci say mots comme léeg-léeg bu ñu déggee sa son bu bees bi nga xamante ne moom nga def mhm. ñu ci dégg yenn genre mots yoo xamante ne xaw ma na taxaw xaw ma ak parce que parce que ko taxaw yow ma lan lan lan lan lan c'est que xam nga c'est-à-dire que dañuy dañuy gis yow benn mhm. vulgarité boo xamante ne dafay nekk say son pourquoi pas nga am choix bi ah, parce que man like euh, man noonu laa mel quoi ah da nga yeah peut-être yéen mën ngeen ko woowee vulgaire but am am like that I like things sexy. ci mm-hmm. sama music sax bu ma koy woy al things sexy laa fay woy quoi. parce que genre genre style de musique boobu noonu laa bëgg laa bëgg indi fii quoi you know even though it's sexy mais uh, I think it's nice to hear like neex na déglu quoi. Mm. en plus mais loolu dina dina dina métti pour nga indi ko Sénégal parce que ñun fi dañoo am ay réalité yaa yaa ay culture xam nga ah si. oh my god wala nga bëgg bëgg a bëgg a wax ni Sénégal dunduñu ay réalité. bon. Mame Matar Gueye da lay wóolu léegi. waaw Mame Matar. <laughs> Jamra xam nga Jamra. ma ne instant yi lu may woy nii ñoom si jëm boppam ñoo ko gën a bëgg a. ah. ay seet ñoom si jëm boppam ñoo ko gën a bëgg a. dañuy jaay première ñoom dañ ko bëgg. hi everybody like ciki ciki woo affaire vulgarité yi ngeen di wax. waaw ciki ciki de ciki ciki moo bi nga wax loolu sànq mooy lan. ah jigi everybody do it ñëpp a koy def jigi jigi paka paka. lii loolu tàccu di tàccu ah di tàccu. Ah, waaw mën ngeen ko wooye mën ngeen ko wooyee tàccu tamit tamit affaire bi des fois day ñëwee tàccu parce que. waaw tàccu la côté boobu noonu tamit waa mën naa ko waaye tàccoo. cest à xam nga xam nga xam nga luy problème mm-hmm. fii sénégalais yi ñoom ñooy laaj. Mm-hmm. toog bi nga toog fii yaa ngi li ngay woy lan mais ma lu ma woy dafa leer dafa nànk dafa non leerul de yow parce que clair tàllalal mu dëgër bañ a wàcc booy tàllalal mu dëgër bañ a wàcc booy ah ñëpp xam na ne comme góor lan moo war a dëgër ci góor yow la moo war a dëgër ci yow nga bari na góor dafa war a dafa lu gën a important ci góor lu war a dëgër loo xam ne tey bu dëgëru kenn la xool. lan moo war a gën a important ci góor yow. ah yow lan nga toog yow moo gën a dëgër ci yow. non man li dëgër man bari moo gën a important ci jigéen ak ko laaj mais yaa ah. hmm. laaj loolu. man ngay laaj pour loolu. Hmm. léegi man posé waat naa la question. lan nga yaakaar tey jii boo ko sentiree. Hmm. dafay dëgër ci yow. <laughs> loo xam te da nga koy yëg te bu dëgëree da nga ko wàccul doo nekk loolu lay wax léegi loolu loo ci. loolu ngay wéy. oui. te loolu normalement ñëpp war nañ ko xam. <laughs> waaye loolu léegi loolu lan nga ci woy. <laughs> lan laa ci woy kii kii de nag xaw ma oh a gi kii daa ñëw pour tas réew mi. <laughs> non tasuma de mais réalité yi laay woy you know lu may woy dam ko feel. you know mm-hmm. lu ñu ñi di dund la. mbëggeel am na ñu koy woy. mais man côté bii laa bëgg a woyee. côté ci yàlla. mais lan moo tax man loolu mooy li si problème mooy lan moo tax yow nga bàyyi fi yëpp temps mooy côté sexe. non mais du tout le temps lay woyee côté sexe. Mm-hmm. ah sexe ngeen wax de kon yéen affaire yi sexe ngeen ko gisee daal. Ah. oh my god. ah fi toog ñoo gën a. yaa ko féetale yow yaa <laughs> yow yaa wax sexe man bi ma toogee fii dégg nga ma la. sexe that's mean yow yaa yëkkati waxi sexe kon ça veut dire que fu may waxee yow jëli nga ko mi ngi nii. kon jël question yi non xam nga xam nga xam nga mm. tey. lan moo lan li ñu mooy lan moo tax nga taamu ko taamu ko mooy nga bàyyi fi lépp mën a woy woy lu yeete mën a woy mën loo xamante ni c'est-à-dire mais man woy naa fi jigéen am naa son boo xam ne jigéen la affaire jigéen lay wax clip baa ngi ci euh, mu ngi ci YouTube bi te tout le temps normalement euh, télé yi dañ koy teg tout le temps. Mm-hmm. woy naa fi jigéen woy naa fi mbëggeel you know woy naa fi badaax. Mm-hmm. sound bi mm-hmm. si laa woy lii parce que artiste da nga war a varier. sometimes du tout le temps ngay ngay nekk ci ay mbëggeel mbëggeel mbëggeel sometimes da ngay woy lu ñoo ñoo di dund. ok you know? mais clip est-ce que yàpp nga ni ñenn ci télé yi mun nañ ko teg parce que am na ci ay genre mots yoo xamante ni boo ko wooyee nit ñi duñu mën a toog di ko seetaan ak seen ay parce que son américain yi. ay taatu ne la ñuy def. mais da nga ne américain ni Sénégal fii dafa réewu julli la réewu. it's not about réewu julli xas nañ ba def music kon dañuy jéene yooyu noonu foofu noonu because music. lépp la y a tout. yeah y a ok kon daal duñ clip bi mën nañoo dem ba xaarandi ku daal ay yooyu noonu ngay wax. yooyu ah tamit waaw. bu ko laajtee moom string sax nga tourner. string. mën nañoo xaar clip boobu. Ah, bu ko laajtee son bi bu ko laajtee ñu ne ma clip bi nii la fa war a demee ah tamit pourquoi pas ma tourner ko parce que artiste mm. moo tax may woy you mm, ku nar a tourner bi mu ne ma lii ak lii ak lii nga ko nar solee noonu laa koy solee. Lovimunas tey moom lañu jàkkaarloo fii suñu biir plateau nee naa leen mu doon ku ragal xale bi dafa engagé <laughs> te lii dama ko bëgg. mais euh, euh, euh, tey nan nga gisee peut-être musique fi nga xam ne mooy Gambie. Mhm. ak fi nga xam ne mooy Sénégal est-ce que fan la gën a yombee. like musique bi yombul si ñaari côté yëpp parce que style musique yëpp benn la peut-être olof yi ñoo bokkul ak suñu style de ak fii. Mhm. mbalax beeg fee ab ko mbalax moo. non très serré. hee allahu akbar. yéen lii ngeen sol seen clip bi boo xoolee en temps réel. dañuy sol suñ clip bi. non mais très serré am na si yoo xamante ne Viviane du ko nangoo sol. Euh, mm. kii du ko sol. Euh, euh, Titi du ko sol. Diena kazaalika keneen ak keneen ak keneen. sexy sexy ça dépend ci clip bi nga nekk di def. clip amul piano laa def même bu fekkoon clip sax Titi du ko def keneen du ko def. non non ay Titi ngay wax ñooñu ay mag lañ. Mm-hmm. mais mais mais musique nga wax seen génération bi instant yi dépassé nañ foofu you know mais si génération buñ toll nii. Mhm. musique bi lu mu laaj loolu la war a def waruñ ko daw. Hmm. son musique internationale laa bëgg mu nekk. yeah ok you understand. Hmm. visé wu ma Afrique kese. ok yeah. Euh, tey nan nga gisee euh, musique du Sénégal c'est-à-dire que aaru Sénégal mi ngi avancé wala avancé wul en tant que koo xamante ni yaa ngi ci biir nan nga ko gisee. Ah, avancé na avancé wul I don't even know Euh, lu ma ci mun a wax rek mooy benn style de musique rek. moo fi nekk yaa mbalax beeg yooyu noonu. Mm. it's not international. parce que instant yi Sénégal mooy réew boo xamante ne dëkk bi yëpp àdduna bi yëpp a ko xam. Mm. foo mun ta dem boo ne Sénégal xam nañ ko. mais seen musique jëndul suñ musique demul fenn. fii rek la yem Youssou Ndour ko waaw non kooku moom champion la. Ah. Mhm. Youssou Ndour rek nga wax mais jon génération bi kan nga mën a wax moo yóbbu musique bi noo bari Wally Ballago Seck ñoom ni ñuy def noonu kon loxo jàppe waaw waaw moom moom moom tam mi ngi góorgóorlu mhm. mais bu ñu waxee côté comme ñu jëkk saa rek ñu ne ñag yi mm. bu njëkk ba américains yi lañ doon wax mais léegi ñag yi ñoo teg mais mm-hmm. pourquoi pas Sénégal un jour tamit ñu indi seen yaay na style musique yoo xamante ne international ñëpp a koy déglu comme duñ basé wu ci Wally Seck wala Youssou Ndour wala Viviane ñetti ñooñu noonu mm-hmm. wala waaw Baba Maal ak ñeneen comme ñu mag yi daal yoona san parce que génération xale yi foog naa Viviane la ak euh, Wally Seck mais à part ñooñu noonu doo doo dégg keneen hmm. seen duñ duñ ko déglu mais est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que fii rek la yem. Mhm. Gambie Sénégal peut-être ak yeneen réew yu ndaw yu nekk suñu suñu suñu wet. Mhm. but without that but <laughs> what's going. <laughs> mais loolu. Mhm. réalité yi nekk Sénégal Youssou Ndour woy na ba woy ni mu toll mosul woy. lu vulgaire te teewul mi ngi yóbbu musique fu mu mënta ne. Youssou Ndour nga wax. waaw jamono boobu jamono. non mais Baaba Maal. solo yu njëkk yi ak solo léegi bokkul. ah. ku bëgg ku bëgg a sol lu baax. amiin nga sol lu baax. déet li amoon li amoon bu njëkk mi nga am ba léegi tay temps Youssou Ndour ay deux pièces amoon na nangam nangam peut-être yaa ko doon gis dañ ko doon denc. I don't give ah. waaw mais non loolu yow la concerné parce <laughs> ma ah, toll nii. mais mais est I feel like to do. Hmm. I'm gonna do because loolu that's te man lu may lu may def ma kontaan rek ci loolu lay dox you know. keneen su ma yoon newu ci. Mm-hmm. you understand. Mm-hmm. lu may make happy ci loolu lay nekk because that's me. I don't a fuck about. ok baax na mi ngi noonu saa su <laughs> comme ni ñu koy daal di defee rek Love Love menace la mu doon koo xamante ni mën ngeen ko dem xool ci plateforme yi YouTube TikTok feneen ak feneen Instagram mi ngi foofu wax dëgg fi yàlla mi ngi fay def ay clip clip clip yu jaar yoon yu rafet waaye tamit ay clip vulgaire yooyu xam naa ne xale du ko seetaan stop dinaan ay clip vulgaire clip vulgaire mooy de 18 ans nga war di def hey mooy de 18 ans it's not vulgaire short sol ma sol c'est mais yooyu noonu. ñi ñi loolu la ñuy sol fii loolu mel ni genre genre non yooyu yooyu kenn du ko sol fii dox. xay yumba ma dinde yow allah peut-être man miy feeñtale man ngeen gis quoi. mais xale yi fii moom la ñuy sol. ah di ko doxantoo. ah di ko doxantoo di dem fu ne. parce que ñoom feeñu léegi man man man mii di feeñ moo tax ngeen di wax di euh, duñ ko sol. ok mais bàyyi yooyu noonu nag. xam nga fa may waxee. clip bi fan non man bu ma dugal man. xaw xam nga baax fu may waxee man xaw ah, xam na de <laughs> xam na de. man damay gis nii rek ngeen tourné ah ma ma ah. xool leen rek invité leen. message hmm. mais euh, clip bi comme vulgaire man understand ma. yow mën nga ko bañ a gis quoi c'est-à-dire dafa am ay genre yoo xamante ni. Mm-hmm. dafay baax bu ko tegee comme exemple 2S TFM nit ki mën a toog ak ay parents di ko seetaan. mais bien sûr. yaa ngi comprendre kii boobu noonu nit mën na toog ak parents mi mu déglu mais. ay na xam nga tamit nag doo mën a toog sa papa nga dégg loolu li mën a na taxaw na affaire bi dugg na yëngatu xaw ma lan lan lan lan genre yooyu. non nañu waxante ne. instant yi foog naa ñagi moom la moom la nit ñi di gën a gën déglu ci àdduna bi te Sénégal ñagi rek la ñuy déglu te seen clip moo gën a grand son bos yi ñu fay def moo gën a grand son bos te dañ dañ koy teg ci télé yi ñagi bokkul leen réalité mun a réalité xanaa musique du musique rek déglu déglu la fecc fecc la dafa am ay xam nga saa dëkk dëkk bu dëkk dafa am dafa am ay réalité yu nekk ci dëkk bi te man loolu laa loolu laa xam réalité ndeysaan réalité boo xam ne duñ ko dund ok kon Sénégal léegi man mënuñ ma seetaan quoi mais keneen bu nekku ci réew mi mën nañ ko seetaan ñu gens ko. Mm. ah man mii doomi réew mi bàyyi ñu gens ma. Mm. bañoo ko la gens quoi. ah bañu ma ko ma <laughs> mu ngi noonu. boo daal day waaru moo loolu mais euh, euh, euh, tey ci wàllu milieu bi nga xam ne peut-être moom nga nekk. Mm-hmm. tout ça kan nga ci xoolee sa bopp maanaam comme a peut-être sa idole. waaw oh, sama idole. tout le temps dama koy wax kii amul idole sénégalais. ah bien sûr. si ah. j'aime Viviane. ok na. Mm-hmm. mun na woy. Mm. te musique na ko fu sori. j'adore cette te tout le temps damay déglu ay son am man mm. ay son mi yàgg sax ñoo ma gën a neex ay son mi léegi. yeah Viviane mm-hmm. moom bokk na ci ñu may gën a déglu. ñu góor ñi fii nag ñan nga gën a kiif. ñu góor ñi ñëpp sa sa son a jéenul rek neex neex a TikTok. sama TikTok la comme ñëpp. soxoroo quoi boo ko nga xam ne yi moo la fi seen seen seen bi euh, ak génération léegi bi dafa bëri ay buuxante mm-hmm. maanaam wàllu xeexante bi nga xam ne am na seen biir yooyu noonu tout ça est-ce que yow yaa oh, que euh, man moom maa ngi sama rukk quoi di pour def tout comme gars yi nu lañ ñi ñu xamee man tam ñu def ma def tout ba ñi ñu xam ma quoi. Mm-hmm. pour côté boobu noonu moom franchement ah peut sûrement dooy dugganteeg ñoom wala dooy am fréquentation ak yeneen artistes si non sama jéem nag bëriwul moo tax xaw ma xaw ma fi kenn. ok lu dugg sama waa studio. lu mhm. dugg sama waa studio I don't non I don't think so. yeah parce que Gambien laa comme ni ma leen ko waxee. Mhm. Euh, lu may nekk Sénégal bëriwul lu may nekk Gambie bëriwul. Mhm. si ñaari dëkk yi dem ci mun naa fi nekk un mois ñëwaat fi un mois deux mois xam nga you noonu lay nekk si ñaari réew mi. waaw ah, tamit loolu da nga koy waxee nag moo tax ma ñoo installé. rajo <laughs> boobu noonu. macha allah loolu mun a sànq saa comme ni nga koy daal di waxee rek clip bi gis nañ ko macha allah rafet na qualité image yi jaar na yoon fan nga ko tourné ak euh, studio bi nga ko reprisé cest dire que gis nañu affaire yi wax dëgg fi yàlla. Mhm. rafet na ko Sénégal la ñu bëgg clip bu rafet. yeah clip bi moom mbay moo ko tourné. Mbaye waaw ñu ngi koy wooyee Phoenix. borom clip bi naay si yi moom moo moom moo teg loxoom ci réew mi quoi. Mm-hmm. maa ngi koy jaajëfal sonalu ma ci dara clip bi mu ngi si jàpp fayu ko sax lu bëri moom moo koy def ci free quoi. Mm-hmm. you know parce que xam na ne un jour dina dina kii quoi dinaa ko replace si loolu quoi. Mm-hmm. you maa ngi koy remercier ci ci ci clip yi nice bi may defaral. you ci xol bu nice bu mu ci bu mu ci kii ak waa studio Rock maa ngi leen di jaajëfal waat ak ku bind son bi ñu ko naan diyem Ah, moom moo nekkoon moom moom si jëm boppam ngeen waroon noo waxal. jéem moo ko bindu ko ah, maa moom ñoo fa nekkoon de. moo ne booy bind del bind lu jaar yoon. <laughs> diem moom tam keneen la. diem lu lu la sax ngay bind. <laughs> moom tam rottim la nekk quoi. Hmm. moom mooy bind son yi flow affaire yooyu noonu xam nga jàpp ci komba bi. ay poliman ñu ngi foofu ñun tamit. ay ay lañ quoi ay zuma ay maga rek lañ non. waaw maga rek lañ ñoom ñëpp samay xarit lañ. ñu invité naa fii job sa brem ñu ngi doon déggante moom ñu kër la. waaw job sa bi ngay wax noonu. moom moo indi ba badax peut-être un jour viendra di ngeen ko laajte la moo tax nga créé moo badax hmm. jokkaloob li menace mu woy ko yeah badax boobu noonu c'est pour voir hmm. nga nekk jigéen nekk ci biir milieu bu doy waar milieu boo xamante ne dafa bari ay chantage ay promotion canapé léegi sax dootuma wax promotion canapé promotion lii hmm. laay wax léeg-léeg ñu la jaaral ñu def lii ma doog la tourné clip waaye léeg-léeg bëgg qualité wala bëgg ah, succès coûte ko coûte succès coûte ko coûte en tant que jigéen nan nga gisee loolu ak loo ci promotion canapé chantage. chantage oh chantage. promotion lii la léegi donatul jéggi nañu canapé léegi ci kaw bi la. lii ah, léegi ci kaw lal bi. waaw oh. jaaral ñu am lu ñu def. pour nga ñëw ñu def jigi jigi daal. jigi jigi succès ngay bëgg wala. man yàlla dafa def man si studio yu ma nekk man dama nekk si studio boo xam ne dafa fixe. xamuñ yooyu yoo xam nga jom sa bren. ñoom mhm, ay jom pa pa pa ñoom may defaral sama son. Mhm. clip kenn moo koy def mooy mbay. you know mm-hmm. before am na ku ma daan tournel mm-hmm. euh, imam mm-hmm. sama premier clip bi mooy baddax ak yooyu noonu moom moo ma ko daan tourner franchement. sama clip yi yu ma defoon ay cinq ans. yooyu moom moo ko daan tourner mais instant yi mbay moo may tourner. te ñoom ñaar yëpp kenn mësuma ci wax dara lu am lu ñàkk fay la quoi. waaw mais en tant jigéen bu nekk ci milieu ngay dégg ñuy wax naan jigéen ñi dañ leen di santage yàlla. waaw mës na ko dund xam nga kaa ñu def lii def nii nangam en ah loolu afta yow la rek yaay xool fekkee arrangé na tu fais si ça donc bu la arrangé wul tamit nga xam na koy kii rek. Mm-hmm. loolu sa vie la you know. bu la arrangé mën nga def mais bu la arrangé wul def daal. waaw nga am sa fulay bopp rek. ok moom Saliou. loolu dépendre na ci nit ki quoi. ok. tey lan lañ mën a xaarandi ki fii euh, euh, ay fan yu néew est-ce que tey peut-être levée menace mën nañ ko xaarandi ci euh, yoo xam ne boîte yi mu jugee ci benn boîte wala leneen ak leneen. <laughs> Lovely Mounass nañ ko xaar ci lépp. balaa moom duñ fa gis moom. ah bien sûr teg orchestre di wax nii di woy nii mel ni ay ñëpp titi est que saa yow mën nga loolu. allahu akbar. man fépp lay fële. Hmm. waaw. Hmm? mbalax. teg orchestre. waaw. di nga woy mariage. déet déet. jàkkaarloo ko <laughs> yooyu moom mënu ma ko. mais tamit bu ma ko jéemee like bu ma ko bu ma ko essayé wala ma jàng ko. Mhm, dinaa dinaa ko dinaa ko xam nga nit koo xam ne ak li nga maîtriser. foofu maîtriser ma ko. Mhm. mais xam nga lépp loo ci sami jàng la. Mhm. peut-être bu ma si concentré tamit bëgg koo def mën naa ko def. mais man maa nekkul ci ci ci yooyu noonu quoi te mosul nekk sama domaine. ci ay woy mariage ak ay kii. mais boo tàmbalee ci di nga mën a tëgg soirée pour woon ñu ñëw nga teg live. eh bien sûr live yii yooyu si sama reeb lay bokk. Mm-hmm. solu saf. Mm-hmm. xoppooku ndox nii. Mm-hmm. ah boobu live moom man loof li menace maa koy def. waaw waaw. looy ndox sa bopp damay waaw damay xëpp ndox mel ni ko tooy. ñëw jàkkaarloog nit ñi. ak lu mu di leen lumbalal déggoo ma de. lu mu laan xanaa jeexal na wax bi boobu live ne ngeen ko xaar moo nekk sama bopp bi indi ay xale yu mun a fecc ay xale yu mun a nu mu tudd say budaa ji ja budaa loolu loolu loolu ay gaa loolu ñun dégg ñu ko ñun ay. buudaa ji jaa mooy yëngalal sa wang bi mooy ko am wang daal. boo amee wan boo xam ne danaa tatak tatak tatak. <laughs> sër bu oyof teg say fer ci kaw. nooy bu daa jijaa sax day am remix. boobu hmm. am pour borom wangi la. invité mu boobu. moom bu ñëwee toog moom xam naa dina réew a fa yàq. ay bii la. <laughs> pour borom wangi la quoi ay daaw. ah vraiment comme saa su nekk rek comme ñu fàttali leen ko dina wax ni loolu menace mën ngeen dem ci ay plateforme

12 ans 11 boo xoolee seen kanam yi rek kon ñooñu nag bu leen wax à partir de 18 ba ba bàyyi yow tamit nag bàyyi seetaan parce que gars yi romb nañ foofu. waaw waaw dépassé nañ ci loolu. Mame Saliou ayca balaa ñu dem moment divertissement. waaw ci sa wàllum style laa ñëwee ba ci lii nga euh, sonni sax maanaam style ci koy inspiré wala peut-être da am sa. Euh, lugu bopp ne xaar ma incarné lii wala ci kan ngay xoole bay bay bay bay def sa style bi ngay sol. sama style bopp la en plus tailleur laa tamit damay ñaw. am na yenn modèle yoo xamante ne laay kon maa koy ñawal sama bopp. waaw ah mannequin laa woon. Hmm. dam daan défilé. maa ngi nekkoon l'As des As. Hmm. agence As As Moussa Samb. mu ngi nekkoon Derklé Liberté 6. modèle laa woon top modèle daan def ay photo di défilé ay podium. Hmm. et tout affaire yooyu noonu après ci laa dugg ci musique bi quoi. léegi lépp lu dem ci ay solo moom yooyu moom. ci sama kii j'aime des trucs sexy. te sax tane naa ko parce que alors dama demoon TFM ñu solal ma pile ñu ne maa ngi mel ni kuy dem plage moo tax tey ma xaw koo yëwal. loo solo lan nga solo ba solo la pile. wuu si palaasoo rek cangal rek cangal bu gaata. mais gaatul noonu sax ngir xaw na yegg ci oom bi. Hmm. you know ma sol comme like euh, benn benn top boo xamante ne like fii lañ koy takk. Hmm. teg ci yére boo xamante ne loolu yeewu naa. nga dem si teg yére bu gudda boo xamante ne laaj dee wàcc yiw yiw na ci yow parce que mooy mooy li may waxaat sànq <laughs> est boo dee dem si genre télé tax ñu la koy télé benn artiste bu sol que boo demee ba invité artiste moom hmm. waroo bañ lu mu sol mais parce que ñoom xam seen clip bi c'est-à-dire dafa am ay hmm. kilifa yu koy seetaan yooyu kilifa yi oh yow daal kilifa yi nga mën mën nanguwul dégg daal yow ah. dañ leen di badax tout le temps kilifa yi. Ah. fu ne lañ leen di dugal. léegi à cause de ah kon solo yooyu. ma ne loolu léegi à cause de ça kon moo ñu solo loolu pile ah gis nga ñu dem soloon ma pile may bëgg a dee tàngaay di ma bëgg a rey may ñaq di tooy rek oh. Eh. doy na waar daal. macha mhm. allah. ñu ñëw ci sa moroom jigéen ñi laa Dieyla Dieyna mhm. Sox Bébé. Mhm. nga gis seen ñu def ay ay son yu doy waar. ay doy waar di cartonné hmm, nan nga gisee ñoom seen seen carrière. yeah seen euh, ñu ngi def nice son Dieyla moom mun naa wax Euh, moom xam naa ko ngeen roktim la nekkoon. Mm-hmm. avant avant muy euh, muy nekk feneen. Mm-hmm. moom laa gën a xam ci yeneen artistes yi Sukube moom xamoon naa ko mooy temps bu mu woyee woon Mati parce que boobu daf ta boobu tam si studio bi la ko woyoon quoi. Mm-hmm. temps yu noonu laa ko xamoon mais depuis boobu jëj naa ko dégg nag instant yi jë jëy laa rek lay déggantal mais ñu ngi def lu nice ñu ngi def lu nice ngir son yu ñuy def mi ngi cartonné yàlla na continuer ba nekk i nañu yóotu ci kaw mu nekk di def nii. instant yi musique Sénégal foofu la toll quoi. we do something loo xam ne international. Mhm. lay nekk. Mhm. yeah we have to fight for that. ñooñu moom fi ñu ngi lay rey moom ñooñu moom yii. yii wax ma laa rey de. ñu ngi may si faay waaye damay yéeg déggoo ma de damay naaw. you don't understand eh. hey man international music eh. lay def <laughs> gars yi xamaguñ ma waaye dinañ ma xam de. Hmm. allah. même fekkee dama leen di juutu di leen wangetu ah. dinañ ma xam. <laughs> di nga fekk tuur ma xam. baax loolu munaas bi laa loolu munaas dañ fi daal di daloon ah fii ci suñu plateau suñu Sunugal 24 saa su ne comme ni fi dalalee kenn ah wax dëgg fa doon jàmbaar. te nañ dem ci loolu munaas YouTube bi seetaan ay clip am bi. xam nga gën koo encouragé ci lu muy def. Euh, sama abonné et tout yooyu noonu. bi ndax ngeen gën a mun a gis yu gën a doy waar. yoo instant yi musique bi loolu la toll. Mm-hmm. ah ngeen am yenn kii ah, musique bi sax dafa war a am ay prono mooy falu saf. ma yéen déglu déglu ngeen Matadi lu mu wax ci son bi. Mm-hmm. non man. yéen instant moo rek ngeen di dégg. Ah, soo Matadi da ngeen ko waroon déglu. sans boobu man nag parce que yow. yow rek la mu ne duma la baalaalee. Mm-hmm. su ma la jàppee dam lay laa laalee. kan wax loolu. Matadi moom moo wax loolu. yow bu la jàppee loolu lay def waaw loolu la may def. yow ngeen ko waaw nga nangu. ah bien sûr. ma nangu. <laughs> ay man loolu lii fu ma koy waxee. ma nangu. ah wala sax maam Saliou. you know. moment de divertissement. li ñu ci déglu si wax. <laughs> di leen jaajëfal bu baax a baax saa su ne yéen ñii safoo di tiitaru. moom maa xam ne yéen danaa seen plateau bi yéen ñëpp ñun ñëpp. dañuy porte plainte. non comme ñu leen di porte plainte mais waxuñ fi dara loo xam ne dafa euh, like. mais lu luñ fa nekk di waxtaan is life bi la. Mm-hmm. c'est vrai loolu lañ nekk di dund. animaux yeeg nit yeeg everybody. is just a feeling taxawal fii def lii c'est cest loolu la ñuy dund. xool ko leen abonné ko ci ay plateforme ci mel ni sur YouTube TikTok ba ci Instagram macha allah di ko jaajëfal bu baax a baax mu doon koo xam ni. mi ngi percé mi ngi ci yoon bi waaye ku jara bàyyi xel la. Euh, euh, euh, question réponse la tey bu ma la laajoon sa plat préféré la la. sama plat préféré <laughs> xam naa boo fi wax leneen nga naan da ngaa mën a fen ñankatang ak diwtiir. ñankatang ak diwtiir lan nga gën a mën ak netatu ak yooyu noonu. lan nga gën a mën a togg yow. man. Mhm. ñankatang. ñankatang nga mën a togg. waaw suy ci diwtiir teg ci netatu ci kaw. togg yomb yooyu daal mën naa ko. ban dëkk ngay reefe dem ci sa àdduna. oh my god Las Vegas. Mhm, Las Vegas Las Vegas dugg ci seen. casino bi cey hmm. sama dream la de sol sama lu saaf talon yu gudd mel ni ñoom waaw def lu ma saf kan ngay réevéel defar featuring featuring xanaa sama Viviane Viviane moom moom am naa rêve dafa ak moom featuring one day hmm, hmm. yeah te foog naa chaque jour ma ñaan ko yàlla te xam naa a day yàlla dina ma nangu lool noonu yeah bëgg naa def ak moom featuring. loo fi taj boo teewoo ci sa kaw la lan ngay njëkk def. lu may njëkk a def. Mhm. wan na. Hmm? wan na. lekk lekk ngay njëkk a def. waaw. boo yeewoo tag quoi. ma yeewoo tag yaa ma demoo sëlemu affaire yooyu noonu julli genre mooy loolu damay julli nag de. yaa may xoolaat waaw. Ah, parce que war nga jiital julli bi moo tax ma xool. déedéet. Ah, ok wax nga dëgg. Mhm. dama man maa mistake dama jom. <laughs> like bu ma yeewoo damay sëlëmu mais bu ma yeewoo. Mhm. dama naan alhamdulilah rabil alamin ci waa sant yàlla. macha ma jóg dem sëlëmu ma jàpp bu waxee sangu moom xam naa ne nga dama mën <laughs> waaye dinaa sëlëmu jàpp julli affaire yooyu noonu. doog a dem lekk. waaw. Mhm. en couple wala célibataire. célibataire en gros célibataire. te woo ma jeune de. woo ma jeune pour ñu ñëw ay sugadee laa bëgg ay pa nga bëgg. faru paa nga bëgg yow. waaw bëgg ma xale. ah Momadou bëri na casting boobu moom. <laughs> bëgg ma bëgg ma lan la pourquoi lan moo tax. parce que da ngeen di sonalaate paa yi duñ sonalaate. on t'a une fois brisé le cœur. ah une fois. mës ngaa jooy ndax góor. ndax mës naa jooy ndax góor. Hmm. non après dama muñ loolu quoi. si mais est-ce que tey jii nii peut-être euh, euh, borom bi def na mu jël kenn koo xam ni métti na lool ci sa àdduna kan lay doon. samay parents. say parents maanaam sa papa ak sa yaay. ñoom ñëpp a décédé. waaw ñoom ñëpp a décédé. sama dund. sa demu gën a métti. sa demu yaay ni nga ko yëgee. non boo may nekk xale awma ci ay fàttaliku yu bëri. bu fekkee sa papa la. moom tamit soriwante wuñu te boobu tu étais bu ndaw ndaw xale nan la lay def nga grandir sans tes parents. rek mais di ko sant yàlla rek comme que maa ngi lekk di naan di yeewu fu baax loolu rek that's cool. bon dafa neex des fois nga entourage entourage parental loolu rek moo manqué parce que tout le temps loolu loolu moom tout moom dafay nekk ci man you mm-hmm. fois nga bëgg la conseil wala. ngay seetaan ay théâtre wala ngay seetaan ay film yoo xamante ne like da ngay gis oh, amoo parental quoi. Mm-hmm. you understand. Mm-hmm. mais am na ci am na ci am na xam ne peut-être ñi ngi gis seen papa ñuy gis seen yaay mais teewul bu ñu leen waxee ñu sànni loon loxo mère bi dafa soof wala paa bi daa bëri wax tey boo gisee ñooñu di def loolu seeni parent ban conseil nga leen war a waaw <laughs> di leen wax ne comme like bu fekkoon man lu may dund ñu ngi ko doon dund. duñ mm-hmm. def loolu parce que suñu genre yi bëgg loolu te amuñu ko. yeah ñu ngi ko bëgg te amuñu ko. Mm-hmm. nañ leen respecté seen parents yi. te xam ne ñoom lépp pour ñoom you understand parce que am na fi ngay toolu sa parent yi rek moo la moo la mën a soutenir ci yu bëri. Mm-hmm. peut-être des fois affaire yu may def affaire yu noonu peut-être sans conseil yu may am la. Mm-hmm. wala saa ay ay mooy loolu daal dama vide. ci benn côté. tu te mais nit ku nekk peut-être am nga benn jaar-jaar walla benn histoire boo xam ne peut-être dund nga ko mu métti lool lool lool ban lay doon. <laughs> non it's okay. you fly lool. mais mën nga mën nga mën nga expliquer on dirait que peut-être am na lu ne sa xol. non man instant lu nekk sama xol mooy sama fami mm. like famille. even though sa yaay ak sa papa nekkuñ fi. Mm-hmm. mais des fois ay mbokk ñu ko jege war nañ la nemmeeku. Mm-hmm. comme di géem a xam ci loo nekk. mais di nga toog ay mois wala ay at. yoo xamante ne like yow da ngay fàtte ne ce que yow am nga ñi nga bokkal quoi. tu vois foog naa loolu moo ma gën a métti. Mm-hmm. yeah ñu ma amul comme ça entourage ak nemmeeku. yooyu noonu yeah ay mbokk yooyu noonu. loolu moo ma gën a manqué sama vie mais à part loolu noonu. Mhm. everything is okay sama ménageur bi toog instant yi moo may jëne ci lu bëri parce que taxawal na ma ci côté ci côté mag. Mhm. ci côté xarit ci côté yëpp quoi. Mhm. yeah even though maag moom ñoo dëkk mais daf ma daf ma daf ma taxaw ci côté yu bëri. des damay toog sama xel sori jooy. mu kii moom. mu soulager ma te lu ma ko dal nii tamit moom moo ko dal parce que moom tamit dund parents mi dunduñu quoi. Oh, kon dañuy ama noppi you know. gën a góorgóorlu gën a fayit. gën a góorgóorlu gën a fayit xam na ne yàlla baax na. di ko jaajëfal loo fi mun a tey moom lañ dalaloon fii suñu biir plateau di moom loolu nekkoon moment de divertissement. ayca mi ngi noonu loolu la ñuy dëppee moment de divertissement question réponse day di doon ci dippa ndawul émission mën a xaarandi ci projet yi. Euh, ci at yi di ñëw ak ci weer ñu jëm incha allah. Euh, instant yi di remercier waa Katato. INT. Mhm. E mhm. waa Katato gars yi Gàmbi lañ nekk quoi. ñoom tamit ñu ngi ñu ngi jàpp ci ci sama carrière musicale bi. Mhm. Small T moo géré seen seen seen kii Small T moom tam Gambien artiste la euh, gars yëpp a ko xam foofu noonu. Dawda moo tax ma xam ko instant boobu moom ma représente ci Gambie you maa ngi koy nuyu moom tamit. yeah di ko big up di waa Gambia sama mbokka yi. waa Gambia. <laughs> waa Gambia. greeting everybody. di leen wax ne Lovely Mounass is here to fight you know for the world music and uh, di jaajëfal waa Sénégal. you understand even though sometimes lu nekk lay dégg. Mhm. mais I don't give a shit. I don't give a shit. seen yi ak uh, yi ngeen yi ngeen may sànni noonu. I don't give a man damay lire. waaw damay liir. des fois lay ñaanal saaga fu garaaw waay doo. man yooyu daf may gën a kii quoi you understand man saaga mënuma dugg fenn. lu leen sax wax blende kon damaa blende. macha allah euh, mën nañu xaarandi album mixtape bien sûr album nañ ko xaar sama live bi tamit live fu taatu ne bi tamit nañ ko xaar. live fu. Euh. <laughs> live fu taatu ne. wala li mu wax dama ko déggul. oh my god ku ñëmul woon nga yow. yeah. live boobu noonu na ngeen ko xaar quoi. live boo xamante ne live. la am Sénégal la histoire privée sax yow di xëcc paay. loolu tamit. ta ta ta ta ta. te ménageur bii di la wax nii yéen ñaa nii ngeen ngeen xoolee nii ci ay verre nii. day war mm-hmm. en plus tamit maa ngi def benn single ak Baba. Mm-hmm. Baba Mbengue. foog naa Sénégal njaay gaay xam nañ ko. Mm-hmm, Baba aussi yooyu oh, ñu ngi def benn featuring mbalax bu neex. yéen ñi naan ndax mun naa mbalax wala mënuma mbalax. maa ngi def mbalax bu neex ak Baba. ak Stargirl sans boobu ne na nga ko xaar avant Tabaski dina jéem. incha allah moom tam maa ngi koy jaajëfal. acca loolu mën a baax a baax am nañu mbégte ak contentement ah, jaar bi nga jaar suñu plateau fii ci suñu Gal 24 nag loolu doon émission Mame Saliou. waaw oh. maa ngi lay bëggee lan ngay tàggatoo waaw am na mbégte bu baax a baax. Mhm. jàkkaarloog xale bu am fit bi ñu gën ko xam ci. Lovy Mounass mu mhm. doon koo xam ni macha allah mhm, ku am talent la. waaye mu doon koo xam ni aussi ragalul fu mu jëm. nee naa la nit moom bu fekkee peut-être yaa ngi ci yoon. bul keesu bul sóoraale. foncé lekk incha allah. maa ngi jaajëfal Marème tamit mi jaane ci bopp bi defal ma sama gërëm. waaw dafa moom salon soriwul fii de. Marcel fii la nekkee boo doxee tuuti rek laay yaa ngi koy am. Ah Marème Marème ñu ngi koy jaajëfal bu baax. waaw Marème maa ngi koy jaajëfal gërëfaas bi nice na trop. c'est très joli euh, ak sama make artist bi tamit. Euh, kii Adja. Adja make up des fois daf may make up. Manding mm-hmm. euh, tamit sama sœur la sama cousine la moom Gambie la nekk. make up bi ci clip bi. Mm-hmm. moom moo ma ko doon defaral quoi moom tam xale ba mën a make up. mais mi ngi Gambie. moom tam maa ngi koy jaajëfal. Mm-hmm. man tam maa ngi koy jaajëfal parce que moom mooy laal ci kanam man moom ñuy laal ci kanam yi bëri na. jël baax maa ngi leen jaajëfal ñoom yëpp quoi. jël jël ñuy laal ci kanam loolu moom. <laughs> Saliou tàggatoo. nga ne ñuy laal fan ci kanam ci kanam ah ah ci kanam bi wala ah, kanam non man non man xaw ma danga nga ma dégg nga wax loolu rek xam nga dañuy dañu ñaw dañu ñaw xalaat quoi comme yow rek waaw comme yow rek sa yow instant yi sa verre yi lëndëm yi nii toj toj ngay wax Allah. Hmm. ayca a baax baax baax loo fi mun a am mbégte ak kontaan mag. ba tey mën ngeen ko dem suivre ci ay plateforme am lu ci mel ni sur YouTube Instagram ba ci TikTok. bu ngeen tapee loo fi mun a di ngeen gis lu am am solo yi nga xam ne mu lay def foofu noonu. waaye di jaajëfal moomoo mhm. borom mën yu nag walaay ndeysaan hmm? waaw parce que xam nga démb mhm. démb dafa ñëw indil ma ñaari neem mhm. damay teste neem yi <laughs> mais waaw neem yi waaw fataay ak mini pizza yi mini pizza yi kenn moom te dafa set sell Mm-hmm. neex gars yi donc na ko ñëpp commandé képp koo xam ne bëgg nga ko. Mm-hmm. macha allah na nga dem ci euh, numéro baa ngi noonu 78 128 61 75. di ko jaajëfalaat bu baax a baax waaye aussi di jaajëfal ki nga xam ne mooy sa ménager bi am euh, wax ne affaire moom àdduna moom nii la jàppatoo mm-hmm. bàyyi tur mi daanu gëm-gëm rek. saa yira moo di la bëggee di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah. ayca kontaan continent ah, mère way leen di topp suñu ay plateformes Sunugal 24 moo xam leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal loolu menace ñëw bi nga ñëw suñu plateau waaye tamit di jaajëfal suma mais instant yi man man franchement nag mhm. gars yi bëggoon naa loon bëggoon naa loon kii nam tudd sax euh, buudaa ji jaabi bëggoon naa leen yëngal buudaa bi mhm. waaye na leen son bi mais instant yi dafa mel loolu loolu loolu it's ah. not going to happen ah da nga ci bëgg yi nga kii ah waaw wan leen son bi pour ñii di déglu pour ñu gën a am like ñu gën a mën a dem déglu son bi. mais mais ñoom dinañ ko xooli sa page incha dinañ dinañ dinañ joxe say page YouTube mën ngeen ko dem xool ko YouTube mën ngeen ko xool Instagram mën ngeen ko xool ci TikTok bi Lovely Mounass def na fa clip bu am solo cest dire que boo defee noonu mooy ëpp six fans quoi gars yi mën a dem <laughs> xool clip bi xam nga. waaw gis nga. waaw kay vraiment ñu koy jaajëfal baax xam naa joxe na numéro minute après di moom mi nga xamante ne tey moo doon suñu gën ci plateau bi comme ni ko maam Saliou waxee daal di def mën euh, ci numéro boobu nga xamante ne moom leen daal di jox ah, maam Saliou kontaan na kontaan naa si bi waaye kontaan naa maam Saliou mi nga xamante ne moo nekkoon ci xarala yi bu image setee moom la bu son bi setee moom la di leen jox nag dig dajab beneen incha ak beneen invité jërë ngeen jëf merci beaucoup jaajëf Peace and